والاختصاص الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل li mu wax ci lixtisaas sax tuuti la lixtisaas xam nga buntu ni daa u la ñu jóge lépp lu yor xeetu ni daa ñu di ko ci tofal par bunt par bunt su boobaa nag lixtisaas ke ni daa in dafay mel ni mun naa daa mu ñu woo doona yaa in te mu bañ ànd ak yaa noonu mooy lixtisaas baatu lixtisaas li mu firi mooy jagle ni kii nga ni ayyuhal fata bi isri qawlika ci gannaaw sa wax joonoon ir jooni ya yaakaar leen ma ayyuhal fata ayyuhal fata ji ma ngi mel na da ngay woote te yow sa bopp rek nga ci jublu irjoniya yaakaar leen ma ayyuhal fata maanaam muxtasam bihi bayna al fityaani jagoo yaakaar leen ma ma ma jagoo yaakaar jooju walis ñi ci des ñëpp ma maamata yaakaar masala irjoniya ayyuhal fata léegi ayyuhal fata boo déggee da ngay defee day woote te moom boppam lay wax rek maanaam irjoniya yaakaar leen ma xaala kaw ni muxtasam bihi bayna al fityaani waqad yuraa def na gis gaa lii nga xam ne mooy lixtisaas doona ayin mu bañ a ànd ak ayu jooju nu wax de tilwa al muy aji topp al te doo ànd ak ayu naxwu naxnu al urba asxaaman badala naxnu nun al urba maanaam maa ngi koy jagle arab da nga koy da nga koy raf nasab de naxnu al urba asxaaman nooy gën jaa tabe koo xam ne badala joxe na alal niki na naka noonu bu laafoon naxnu maachir al arab dégg nga wala naxnu maachir al ambiya laa nuurasu ma taraknaahu sadaqa maachira ñu ngi ko nasabe lixtisaas naxnu al urba urba ñu ngi ko nasabe lixtisaas maanaam naxnu al urba ay axussu al arab arab loolu niroo naag nidaa moo tax ñu sësale ko ci buntu nidaa ndax ci mansubaat yi la bokk te itam yor na melow ni daa ba nga xamee ni yenn yi dañ naan ayyuhal fata tahdir wal iqrar kookoot ñaari mbokk lañu ma ngi mel ni ma ngi mel naka tamis ak nakira wala nga ni ña ngi mel naka xaal ak xabar la ñu bëgg fee moom la ñu bëgg fee la ñu bañ fee moom la ñu bañ fee at tahdiru mooy tambih ala amrin makruhin li yajtaniba iqra safaan mooy tambihul xayri ala amrin mahmudin li yafalahu yëgal nit bon bon bu ne ci mbir pour mu wattandiku ko li ki am na baat nag bu ñu ko tëralal xaas moo di iyaak liqra mooy nga yee ko ci lu mu yëgul woon loo xam ne lu baax la pour mu profitoo def ko kon ñoom seeni maanaa safaanoonte na seeni istimaal daanaka benn la waaw léegi nga ni iyaaka wa charra من إياك والشر ونحوه النصب محذر بما استتاره وجب إياك والشر وخد ملنون واتند كل بن إياك معنى احذر واتند كل باعد نفسك والشر أك أي لولو باتو إيانك موي برنسيبال تي بوبو معنى معنى تحذير بتخنا موم كان بتود فعلم جكوي نسب مكت مفعول فعل بنيو xasab la maanaa ixdar maanaa wala baid nafsaka soreelal sa bopp waaye li fiil jooju waroon a nasab iyaa kenn du ko tudd mukk ndax nasun la fi taxdir wa charra nga ataf ko ci su fekkoon ni aywa wa naxwahu ak lu mel noonu nasab nasaba nasab na muxadirun kuy wattandikuloo nasab na iyaaka wa charra bi wa naxwahu ak lu mel na moom lu mu ko nasabe bi ma ak amil jooxani feel jooxani istitaaruhu ak laqoo maanaam ak xadafoom wajaba dafa war ci arabiya lu dëgg ixdar ja ngay war a wax wala baid ja ngay war a wax mu waroon a nasab iyaaka kooka duñ ko tudd mukk ndax iyaaka nasun la fi taxdir sawaun kararta aw atafta alay moo xam baa mu nga ko ne iyaaka iyaaka dégg nga iyaaka iyaaka doo tudd feel ja ci takraar gi wala da nga caa ataf ni ki iyaaka wa charra wala ataf woo ca da nga ne iyaaka benn yoon rek iyaaka wattandikul iyaaka nas la ci taxdir moom ma amilam dañ koy xadaf sawaun karrarta wa sawaun atafta am lam tukarrir walam taati bi xilaafi xayrihi dégg nga wute naag lu mel ni ki naaqatallahi wa suqyaaha kooko taxdir la maanaam wattandiku leen naaka yàlla gi ak naan naandam naan naanam gi muy naan teen bi bu leen ko jege ci xisatu samut du dëgg waaye kooka kenn du tudd feelam waaye ataf gee tax na kooka moom ndax baatu naqatalaay du nas ci taxdir de tax na asaf daganoon na bu bu ñu ataful takraaruñu mën nga tudd feelam bu la neexee mën nga ni ixdaroo naqatalaay du wàññi dara dégg ci arab yi waaye nag soo ne naaqatallaahi wa wa suqyaaha ci wàllu arabiya gi du jéggee ni li mooy xosoosu riwaay alquran kenn du ko soppi déedéet arabiya gi rek kenn du ci tudd amil ja tax tak naka noonu su fekkoon da ngaa takraar itam nga ni nit al asad al asad ah maanaam ittaqil asada wattanikul gaynde gi kon ittaqi ja kenn dootu ko al asad al asad naka noonoo tam soo si atafoon al asada wal qurba minhum ba tey doo ko tudd ndax ataf soo naa ataful takraaroo nag bu la neexee tudd feel ji kay nga ni ittaqil asada ndaxte yooyu baat du nas ci taxdir wuuteeg iya أي لإيا سب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كضيغم الضيغم يا ذا السهل léegi kon li ma la doon wax rek mooy loolu elza bi atten wax te mooy war a xasaf amil du mooy att bi nu waxoon bi mastitaaruhu wajaba la wax amil joo xam ne ak asafom dafa war waaye mu ne wan sub aseel atta boobu nga xam ne mooy wujubu xasfil amil na nga ko askane li iyaa ñeel iyaa mi nga xam ne moom nas la ci taxdir doona at fin ci lu dul ataf dégg nga du dëgg wa ma siwaahu bu dul iyaa nag ci mboolem baat boo xam ne dañ koy wattandiku al asadaak naaqatallaaheeg azulmaak dégg nga soo dee tere tuñ nga nga ni nit azulma loolu dagan na bi maanaam ittaqi zulma waaye su boobaa nag sañ nga tudd feel ji nga ne ittaqi zulma waaye soo ne azulma wal mudaawamatu alayhi kooku kenn du tudd amilam ndax atam wala nga ne ko azulma azulma kon it doo kenn du tudd amil bu dee iyaa nag sawaun takraar nga wala ataf nga wala takraaru atafoo moom kenn du tudd amilam abadan ndax moom mooy mooy cosaanu mooy principalu bunt bi mu ni nag wa ma siwaahu lu dul iyaa satru fiilihi xadafu fiilam lan yulzama deesu ko waral deesu ko warale kenn illaa ma al atfi lu dul su àndee nga ataf dégg nga ni ki rasaka rasaka awit maanaam nga ni rasaka wa sayf watul sa bopp bopp ak jeesi rasaka wa sayf kenn du tudd ittaqi du dégg wala nga takraar awit takraar ni ki a daygama daygama daygam mooy gaynde al asad al asad maanaam wattandikul gaynde kooku fiilam doo ko tudd du iyaa nag kon moo tax soo ataful takraaro mën nga ni ittaqi l asada ittaqi daygama wa shadda iyaaya wa iyaahu ashad nee na wa shadda génn na xiyaas nag taxdirul mari nafsahu nit kuy wattandiku loo boppam loo jékki naan naa bañ a def nangam au lieu nga yow aji rañaan ji yow miy dox guddi wattandikul gaynde gi yow miy dox guddi wa shadda génn na xiyaas nit ki taxdiral boppam wattandikuloo boppam naan iyaaya maanaam iyaaya soreel ma naa wattandiku dina ndaxte nit bu naree taxdirloo boppam mu bàyyi rek mel ni yow muy def feelu lamri nit warul sant boppam soo naree sant sa bopp bàyyil defal soo naree tere sa bopp bàyyi rek wa shadda iyaaya fi qawli umara li litu lituzakki lakumul asalu warrimaa wa iyaaya wa an yaxdifa ahadukum al arnab omar ibnu alxataab di waare di ñi gaa yi dem ci juyóos yi ak àll yi mu ni leen di leen rendee ci rabi àll yi ngeen jàpp di leen rendee dégg nga xeej yi maanaam asal yi ak rimaax yi xeeti xeej lañ di leen rendee xeej yeeg yu mel noonu lépp maa lahu muhaddad bépp weñ wala lu xeer wu moo xam ne dafa am ñaw ka gu mën a dagg der lu gaaw dégg nga ne di leen rendee yooyu wa iyaaya maanaam wattandiku leen leen wa an yaxdifa ahadukum al arnab kenn di sadd lëg aw yet rek fàdd ko noonu arab daal lépp ni puxet rek nga ni ko sawet farit mu daal di sedd nga daal di yóbbu déedéet loolu du rendi di leen rendee xeej yi wala jaasi wala paak wala léegi ci wax Omar boobu wa iyaaya mooy shahid dégg nga wa iyaaya nee na kooku shahid la du qiyaas iyaaka ngay wax iyaahu nag ashaddu moo gën a sore ndax xaayib nu ñu koy wattandiko te fekk nekk nga naan wa iyaahu wa iyaahu ashaddu moo gën a sore xalaat xiyaas wa wa wantabada sorina an sabilil qasdi walis yoonu digg doomu man xaasa ku bëgg a xiyaas ci iyaaya ak iyaaw ku wax ci nax yoon yi mënees na ko xiyaas kooka waxam ja ju sore dëgg la ju sore qasd la jaadu wa shadda man xaasa alayhima ku ca xiyaas ni mënees na ni wax yooyu kooku ku ko xiyaas intabada sànni ko na sore na an sabilil qasdi walis yoonu digg doomu وكم محذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل gis nga ixraadu ci wax dara ndax nee naa la moo kii ñoo bokki atte moo tax mu tënk li mu ci wax mu ni daal waj al defal muxran bihi ku ñuy xiire na nga ko def ka muhaddarin bila iya ni ki ku ñuy taxdirloo ci lu dul baatu iya kon bon ixra itam soo atafulee takraaro su la neexee tudd feel ji su la neexee bàyyi ko mën nga ni nit rek axaaka maanaam ilsam axaaka takkal sa mbokk jàppal ci sa xarit axaaka sadiqaka abaaka maanaam maalaka léegi kon feel ya ilsam wala xud yëpp nga mën ko bañ waaye nag soo atafoon mbaa nga takraar moom itam noonu dégg nga ni ki axaaka axaaka innama laa axal lahu ka saain ila alhayja bi gayri silaahi axaaka axaaka maanaam takkool sa mbokk jàppal ci sa mbokk kooku kenn du tudd feel ga dégg nga boo ne itam axaaka wa mu waalaatahu ataf ci ba tey feel ji doog mu kon nag loolu rek la ciy wax fi kulli maa xat fu si la ci lépp lu ñu tàqatli woon ci attey bunt bi benn lañ paat dafa am lisim ju ñuy wax ismul feel am lisim ju ñuy wax ismu sawt ndax li ñu ko tax ñu naan ko ismul fiili lisim la jooxaani maanaam feel lay yor kon feel ba la ñu jël wutal ko aw tur aw tur nag mooy lisim ñu di ko ismul fiil ni ki soo bëggee ni sori na nga ni hayhaata hayhaata ab lisim la baatu sori na la ñu tudde hayhaat ñu di ko ismul fiil ismul sawt mooy xikaaya nettali ab sawt ni ki taq ci waxu arab li wiqa li xikaayati sawti waqoo xajarin ngir dalug aw xeer bu doon wolof it noonu la wolof daan xeer wa nee na taq taq jooju arab baat bu génn ci gémmiñam ci ci ci grammaire am ci naxu fokk ñu xam lu mu ndax day mën doon lisim mbaa feel mbaa xaraf taq nag bu ñu ko gisee du xaraf du feel lu mu tegtale maanaam turu sawtu bi ngay dégg bu xeer daree wala ban xeer dal ci weñ la ngay dégg ci sa nopp ah loola mooy sawtu boobu baat boobu ngay dégg moom la ñu wutal tur woowu moo tax da nga naan nee na keng mbaa nee na taq yooyu nag lay jàng ismu sawt maanaa ba an ficlin ka shattaana wa sax wa sax huwa ismu ficlin wa kada awah wa ma aywa nee na maanaa ba la remplacé an ficlin ci ficil ni ki shattaana remplacé na bauda sax remplacé na uskut noppi kooka huwa moom ismu ficlin mooy ismu ficil wa kada naka noonu yooyu nag amma chat chattaana mooy taqalikoon chattaana lu ma la ko firile hay haata laa firee sori na kat hay haata chattaana mooy iftaraq taqalikoona sax noppil kon chattaana ak hay haata ismu feelu maat lañ ndax lisim ji ñu remplacé feelu maat la sax ismu fi'lu lamar la ndax li si fi'l bi mu remplacé lamar la huwa ismu fi'lin loola moo di ismu fi'l la remplacé fi'l ci maanaa wa kada naka noonu awwah bi maanaa atawajja'u ku daray metti nga ni awwah awwah du dëgg wa mah fegul awwah ismu fi'lu mudari bi maanaa atawajja'u mah ismu fi'lu lamar bi maanaa ukfuf fegul léegi nag mu xamal la ni ismu feelu lamar moo gën a bare dégg nga moo gën a bare ismu feelu mudaari moo gën a bare ismu feelu maat ismu feelu lamar moom bare mu ni wa maa bi maf naf bi ma wa maa ismu feel ja nga xam ne bi maanaa ifal maanaam defal la yor maanaam feelu lamar la yor ko ni ki amiin ismu feel la bi maanaa istajib kooku kasura bare na wa xayruhu lu dul lu yor maanaam feelu lamar nag ka way ni ki way mi yor fi'lu mudaari bi maanaa ajabu damay yéem way ka annahu laa yuflihul kaafiruun ak hay haata bi maana sore na ismu fiilu maal yooyu nasara nasura néew na wal fas wal fiilu min asmaihi alayka wa hakada doonaka ma ilayka dafa bëgg a wax ni la ismu fiil nag am na yoo xam ni murtajal la noona rek la dikkee jëlewuñu ko toxalewuñu ko fenn ni ki way ak hay haat ak yooyu am na boo xam ne nag manquul la dañu koo toxale feneen léeg-léeg dañu ko toxale ci jaar ak majruur sax kon jaar ak majruur xarafu jar ak la mu doon jar ñu toxal ko noona def ko ismu feen wala zaraf ñu toxal ko noona def ko ismu feen moom la ni wal fi'lu feel min asmaihi bokk na ci ay turam ci ismu feel yi alayka jàng ci alquran ya ayyuha alladina amanu alaykum anfusakum seetuloo alayka ni mu nasabe anfusa xanaa kon feel la ndax maanaam feel la yoon alaykum ilzamu anfusakum fagaru leen gardi leen seen bopp alaykum anfusakum waaye doone alaykum nekk na ci seen kaw déedéet ndax du jaar ak ma juróor ji du dootu yor loolu wa hakada naka noonu bu fekkee zaraf ni ki doonaka xuz au lieu nga ni ko fabal nga ni ko doonaka ma ilayka au lieu nga ni ko toppal na le nga ni ko ilayka ilayka anni toppal ne sore ma ilayka anni mooy toppal ne sore ma kadaanaka noonu ruwayda maanaam defal ndànk ruwayda ka ruwayda defal ndànk kogoot ismu fi'l la bi maanaa imal naka noonu balha maanaa utruk bàyyil balha yooyu ismu fi'l la naasi bayni fekk nag ñu di ñaari way nasab moom ruwayda ak balha su fekkee dañoo nasab ma foo léegi ismu fi'lu kii ismu fi'lu lamar la maanaa ismu fi'lu lamar lañ ruwayda zay ruwaydan zaydan ruwayda zaydan ruwaydan zaydan mooy bi maanaa imhal ndànku def ko ndànk ruwaydaka defal ndànk balha balha nangam mooy ay utruk bàyyi ko loolu bu fekkee naasi bay ni ñuy way nasab ma fool kon ismu fi'l lañ mu ni nag way amalaani danañu jëf moom ruwayda ak ak balha alxafda ak xafat way amalaani alxafda masdarayni mbir ñu ñaari masdar su boobaa kon duñ ismu feel ay masdar lañ ndax ruwayda dañ ko tarxiim waaye tarxi tasxiiru tarxiim lañu ko defal waaye baat bi mu ngi jóge ci arwada teeylu na irwaadan dégg nga irwaadan masdaru afala ifaala moom la woon ci cosaan ñu tasxi ko tasxiim goo xam ne gu tarxiim la tasxiiru tarxiim mooy dañuy dindi xarafi ndolante ya ca baat ba ba mu des sulaasi kon ñu indi arwada xamsa gu jëkk gi xamsa ak afala gi ak xamsa ga xëccoon waawa ca masdar ba irwaadan mu des raa ak waaw ak daal ñu ni ruwaydan dikk na ci alquran amhilhum ruwaydan wa ma liman tanuubu anhu min amal laha walaha ñeel na ismu feel nag maa la nga xam ni ñe lima tanuubu ñeeloon na feel jamu remplacé anhu ci moom min amalin ci jëf jamu remplacé la mu amoon ci jëf moom la ismu feel ji am su fekkee lazim la woon feel ba ñu remplacé ismu feel ji lazim lay doon de ni ki mah bi maanaa ukfuf su fekkee ni mutaaddi la remplacé ismu feel ji mutaaddi lay doon xanaa leen la ñuy wuute nag ismu feel feel a ko ëpp doole ci jëf feel moom nu ko neex mën na ko defee mafoolam feelu mutaaddi da ngay gis ko ni zaydan daraba zaydan daraba amrun nga gis nga dawal mafool loolu bu fekkoon ne daraba ismu masdar la tey du man loolu nag su dee mutaaddi moom moo tax mu ni loolu la jublu ni wa axir mujjeel maa maamool ma nga xam ni li di ñeel na ismu feel mii amalu jëf fii ci moom la nga xam ni ismu feel la jëf ci moom na ko mujj na ismu feel jay dawlu su ko su dawloo ismu feel ja jooju ismu feel dootu mën a am jooju doole ndax dañu ko yéegaloon ci feel mu taasu ci barke feel ak dooley feel ah ku ñuy taasu ci barke waaye doo ko jekku na ko waaj a jekko woon waxkum bi tankiiri alladi yunawwanu minha wa taarifu siwaahu bayin waxkum ateel nag bi tankiiri alladi ci nakir ak la nga xam ne yu nawwanu dañu koy tanwin minha ci ismu feel luñ ca tanwin nakira la su fekkee da nga ni ihin nakira la ihin maana aywa boo ne ih maarifa la mo loolu nakira ak maarifa nu ñu koy xamee ci yow maanaam su fekkee waa ji da doon waxtaan gannaaw ga mu noppi soo ko ne ih danga ko ni aywa ci li nga doon wax kalaam ju ñu xam jooju woon kon loolu kon maarifa la soo ne ihin da nga ko ni ay wa andil ay kalaam bépp looy war a loo wax rek baax na andil andil ab andil ab wax mel da nga ko ni waxal dara soo ko ni ih nag da nga ni ko ay wa wax dellu waxal ci loolu nga doon wax loolu mooy nakki rek dégg nga naka noonu sax noppil soo ko sukkoonee maarifa la soo nee sahin nakira la du dëgg nit day wax bëgg ba yegg ci loo bëggul wax nga ne ko sax maanaam daf mel da nga ko noppalul ci jooju wax dong jooju wax xaas aywa boo nee sahin nag da nga ko ni noppil mutlaqan ko naan sahin faya naaman naas waaye noppil ndax nit ñi mën a nelaw ah xanaa bul wax dara kooku sahin nakira la moom la ni waxkum bi tanwini alladi yunakkaru dégg nga bi tanwini alladi yunawwanu minha ci ism feel wa taarifu siwaahu bayinu maarifa lu lu dul lu ñu tanwin la lu bir la wa ma bi léegi loolu la doox ci ismu feel mu nax ci ismu sawt nag wa ma bihi xuutiba ma laa yaqilu min mushbihi lfili min mushbihi ismi lfili sawtan yujalu wa ma beneen lisim ba nga xam ni xuutiba bihi dañuy waxanteeg moom maa loo xam ne laa yaqilu du boroom xel looy waxanteeg ki ay jur loolu ismu sawt la ñu koy wax dégg nga ni ki tey xaa xaa dégg nga ak aa aa dégg nga ni ak adas ngay dàq sa bax la adas arug ci wala lu ismu feel la danoo jàngul grammaire wala arug dàq mbaam acc dàq béy léegi lu amul xel ngay waxal loolu ismu sawt la ñu ko tudde ni nga xam ni yooyu ak xikaayatu sawt ba tey wa maa la nga xam ne xóotiba bihi dañ koy waxanteeg maa laa yaqalu lu yorul xel min musbihi ismil fi'li ci loo xam ne dafa niroog ismu fi'l ci liktifa kooku yuj alu dañ koy def sawtan maanaam ismu sawt lañ koy tudde turu baat kada alladi ajda xikayatan ka qad sawt alladi lisim jaga xam ne ajda dafa jëriñ dafa tegtale xikayatan ak nettali ka qad li waq is say dalug jeesi nga di jeesi ja nee na xab seetal wolof da daan xapp na ko jeesi xapp kat xikaaya sawtu jeesi ji bi mu dalee mooy xapp ndax jeesi bu cawee dana xapp mooy ka xab li li xikaayati waqoo is say ala dariba dégg nga mu ne nag walsam na nga taqoo bina naw ay ni tëb binaalug ñaari façon yëpp ismu feel ak ismu sawti yëpp dañu leen di binaal fa huwa moom qad wajaba war na nuunaat tawkiid yi yaari nuun yi ñuy feddalee feen ñaari nuun yi mooy guñu sàdda gi ak guñu sàdda wu idri bann wala idri bann lil fiili ñeel na fiil lil fiili tawkiidun bi nuunayni huma ka nuuna yidhabann waqsidanhuma yuakkidaa nifal wa yafal aatiya daa talabin aw shartan aw aw shartan imma taaliya lil fiili ñeel na fiil tawkiidun ak fedd li bi nuunay ni ci ñaari nuun huma ñaari nuun yooyu ñu ngi mel ni ki kanuunay ni ki ñaari nuun yi nekk ci idhabanna bu ñu sàddagaa ci waqsidan huma jublu leen da nga bëggoon ni idhab nga ni idhaban iqsid nga ni iqsidan waxuloo iqsidan na ni ki idhaban da nga ni iqsidan nuunu tawkiid xafif ah idhabanna demal iqsidan huma jublu leen fokk na nga leen jub yu akkidaani ñaari niin yooyu dañuy feddali ifal maanaam feelu lamar la ñuy feddali wala yafal maanaam feelu mu daari o feelu mu daari o nag fañ du doon foo ko fekk mën a feddali doo doo tëb-tëb naan yafal lan na saydul te waxuñu loolu day fekk yaf al aati yan dafay dikk za talabin di boroomuk sàkku muy boroomuk sàkku ifal lan na wala mu daari ama nekk sartan fi'lu sart taaliyan bu di aji tab imma niki imma tadribanna zaydan fa imma tarayinna imma xarafu sart la in ma zaida topp ca in ma ñu le daxaame goon imma na fekk nag mu daari oma tabbi ci sart wala ñu fi addali koog noonu niki imma tarayinna aw musbatan wala muy fi'lu mu daari o bu ñu saxal fi qasamin ci ngiñ mustaqbalan bu jëm ca kanam ni ki wallahi la yadribanna tallahi la akidanna danaa ko def defaguma ko wallahi la yadribanna saydun amran wat waat naan dana ko def defagu mu nekk fi xasamin mustaqbal jawaabu xasam mustaqbal foofu kon dañu feddali mu daare dani wallahi la yadribanna zaydun amra tallahi la akidanna asnam wa qalla néew na nag fedd lépp mu daari on nuun baadama ci ma dégg nga walam ak lam wa baada laa gannaaw laa yooyu yett nag wa xayri imma ak gannaaw lu dul imma min tawalibil jasaa ci mboolem sart yi wut jawaab yooyu place yooyu fedd li fi mu daari on nuun lu néew la fi mu bare daal mu nekk ci jumla eh, fi'lu sart ni ki imma tara yin wala jawaabu qasam boo xam ne mustaqbal fi'l ja ëllëg la jëm ni ki wallahi la af'alanna wallahi la yadribanna saydun foofu moom qiyaas na toujours wa qalla néew naa am baadama du dëgg ci gannaaw ma ah, ah, ne ndax defu ci dara baadama ah, baadama zaida niki ma ra'ay ma bi aynin ma arayannaka bi aynin ma ma zaida maana maa ngi la gis bu baax ak sama bët mooy bi aynin ma arayannaka ara fiilu mudaari on ma zaida dawlu na ko foofu nag ñu dégg nag arab feddali ko nuunu tawkiid sadiid ah bi aynin ma arayannaka sama bët laa lay gise bu baax a baax maa ngi lay gis bu wóor ak sama bët loolu mooy maanaam bi ay nim maa ara yan nag ma bi dëgg waaye kenn déggul feelu mu daari moo tëb rek ni yadri bann zaydun amran loolu kenn du ko bi ay bi ay nim maa ara yan naka haahuna maa ngi lay gis ak sama bët fii bu baax haada taqulu haada da nga koy wax liman yuxfi alayka amran anta basirun bi maanaam da nga koy wax ku lay nëbb mbir moo xam ne yow yaa ngi ko xam nga ni ko bi ay nim ma ara yan kooku nag foofu néew nag lu ni mel ci waxu arab waaye dégg nañu arab wax loolu gannaaw lam itam ni ki yaxsibuhu ljaahilu ma lam yaclama cheykhan ala kursiyihi muammama yaxsibuhu dana ko defe aljaahilu ko xamul ma lam yaclaman feeg xamul nuunu tawkit xafiif la nuunu tawkit xafiif nag alif la ñu koy binde ma lam yaclaman kooku alif googu nuunu tawkit xafiif la seetal la yakunan min asa dégg nga la yasjununna wala yakunan du ak tanwin nuunu tawkit xafiif moo fa ne nuunu tawkit xafiif nag alif la ñu koy binde ndax soo fay taxaw tuuti da nga ko kii dana wax ci bunt bi ni wa abdilanha baada fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa comme booy taxaw ci nuunu tawkit xafiif alif nga koy soppi